yéen a ngi teewlu info 221 mbokki internet yu info 221 daleen ak jàmm ci jotaayu xibaar ñëw dikkal leen benn kawteef boo xam ni dafa am fële ca Bambey ni ki tey ci julli tabaski bile benn imam bu yuyoo ci turu Balla Mbàkke ginnaaw ba mu doon jiite julli tabaski bu tey la rek benn waay daal di jóge fële naroon ko rek jam benn paaka boo xam ni wax nañu ni paaka bi ginnaaw ba mu ko rek wutsee ngir daal di ko koy jam ba mu xàccee rek fas yéene ko jam après paaka boobu dafa daal di lee dëng ca ay xabaar nag daal di wax ni waa joojale xel mi dafa daal di neexul benn yoon waral lekk mu bàyyi ba nga xam ne askan wi ñu ngi julli mu rekk jugee fële ak paakaam fas yéene ko jam boobu lépp imam di wuyoo ci Balla Mbàkke doon jiite la nga xam ni moom moo di julli tabaski boobu léegi fële ca Bambey ginnaaw loolee nag. ñi nga xam ni itam ñoo doon julli foofu daal di daw def intervention daal di téye boobu lépp euh, waaye nga xam ne naroon na amal jëf ju ñaaw ni ki tey ci julli tabaski bële fale nga xam ni kon moom moo di sa Bambey lu ci mënti am rek euh, internet yi nga xam ne euh, à chaque fois ñoo ñuy topp fii ci info 221 daañu leen toppal boobu lépp xabaar ba xam fan lay daal di mujj mbir yi fan lay daal di rek àgg ginnaaw ba ñu waxee ni rek moom waajoo jile am na rek tuuti wér dik xel ndaka la daal di mujj jéeg eh, jooju leb waay eh, daañu leen ko toppal ba lu ci ruusaat rekk ci ay xabaar ñu daal leen koy indil jaa ngeen jëf mbokk yi ci ànd bi ak diglu bi